yëkkati ay kàddu yu wolof ngir jotal ko mbooloo mi fi toog ndax sëriñ Tuubaa kat day dëggi dëggi lislaam day dëggi dëggi liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa dëggi dëggi lislaam jooji nag da koo indi baaxe ñu ko bàyyeeg ñoog suñu bopp ñu doon li ñu doon doon ay sénégalais doon ay africain doon ay jullit àqat ba noppi nag ubbiku ba lépp lu baax feneen ñu jëli ko boole kook li ñuy wax loolu yi Mbàkke la ñu koy sante Sëriñ Muntaxa xam àdduna gis àdduna gis fi mu toll mu ne li mu gis ne mooy solution bi nga xame ne jiixi jaaxa yi am ci àdduna mooy xam Sëriñ Tuubaa Sëriñ tubaa est la solution moo tax li wundu ay bis bii ñu jëm tey ubbi tey ngir laayante biir ci xam-xam bi nga xamee ne sëriñ tubaab bana ko fi ndono li nga xam ne sëriñ tubaab bana ko fi te ñépp war cee mën a ji ëpp na nu nun Sénégal ëpp na Afrique waaye àdduna sépp ko soxla moo tax ñu sos lii ñu sos sëriñ taxaa joxe ndigal ba nuppi ñaanal ñu bi ñu indee photo yi nga xam ne dañu koo wecciku dane maay njëkk a barkeelu ca yërmande ja ca mbaax ga ca njàmbaar ga mu ne dinaa ca jëndal téeméeri murit saadix yi nga xame ne amoon nañ yéene barkeelu ci ndax sëriñ tubaa ab fotoom kenn mënu koo jënd dangay ngay barkeelu barkeelu ci téeméeri murit saadix ñu dem mu woom ne loolu kat doyul sax damay bind bataaxal ne bismillaahi rahmaani rahim jërëjëf jëfal sëriñ Touba te yàlla tax loo ci def jar na lu ko ëpp téeméeri yoon daal di signé cheikh Mouhamadul Muntaha ibn cheikhul Basir cheikh Mouhamadul Bachir ibn cheikhul Khadim ñu ne boobu amul njëkk foto bi nag amul woon njëkk. waaye bi mu ko siñee moom sëriñ bi nga xam ne mooy kooka wecceeku bi nag dinañ ko yokk moom lañ def million loolu lépp nag dañuy génn dabu li nga xam ne moom la sëriñ Touba teg mooy manal sa bopp di defal sa bopp mooy jumaay njaareem mooy jumaay tubaa moo indi raay moom la jëwrin mbàkk yu fay mii joggi ba def fi lu rëy lii di Masaalikul Jinaan loolu ku ko gis xam ne sëriñ tubaab amul moroom moo dàq jumaa moo gën a rafeti taalube ñoo ëpp xam-xam ndax mooy sëriñ bi moom la sëriñ taxa Mbàkke ci mbaaxam tabaxee université bu mag bii ci Touba ci 18 mois fanweeri milliards ak lu teg lépp murid yi def ko ci loolu lañ leen woo jaayante ngir liggéeyal sëriñ Touba nga xam ne foto yi sëriñ bi ci boppam ñooy defar kërug barkeelu gi nga xamee ne ay bagaasam bagaas ñu tedd ñi sosoo ci moom seexi sëriñ tubaa yi fa lañ leen di teg looloo ñu fi dajale moo tax ñoo ngi sant bu baax ñëpp ñu fi teew di sant monsieur le premier ministre di ko nuyu di jël suñu nuyoo ci président de la république teg ko ci loxoom ndax foto yi kat maa ngi seeral àdduna da biñ ko korkorelee suñuy dërëm ak suñuy dërëmaat ba indil ko sëriñ taxaa mu jël ko ne na ngeen ko yóbbul président de la république ndax moo nekk ci boppu réew mi ku wax ak moom wax nga ak sénégalais yépp ay citoyen lañ ay républicain lañ biñ ko ko yóbbulee mu ne lii kat Sénégal la waroon ndax sëriñ tubaa ñépp a ko bokk mu jël jëf ju am solo bu méngoog lañ ko jënde woon jël ko teg ko ci suñuy yoxo loo lii day dugg ci liggéey bi lii bi mu ko déggee dana kenn du ci jiitu recevoir ñu lim ci war a def lépp mu def ko ñun nag ay cantaakoon lañu ku nu defal ñu wax moom nag def na wax nanu ko ñu ngi ciy xaar ñépp jërëjëf euh, jëwriñ xol sedd nañu xel yi dal na lii mu wax dafa mat a leeral bi mu yeggee président de la république da ni li ñu ko jënde lépp naa ko joxe ndax kat sëriñ Touba ku yeex ñu raw la ci loolu lañ jëkk a jël teg ko ci loxol Cheikh Mahamadul Muntaxa photo yooyu nag bëgg nañu bala ñu fay jóge ci saal bi ñu jaayante ak yi am na ku ma woo léegi ma ñëw benn ji ma nga toog ne ca waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall soxna Seynabou Ndiaye ñoom waa kër maam Cheikh ni ma maa ngi million damaa bëgg a jënd ñëpp bëgg jënd ah? soxna Koddu Seen soxna gàmmo mi ngi nii toog ànd ak jigéen ñi gàmma Jóob bu bàyyi njóogu ànd ak jigéen ñi kenn mënu leen waaye ministre bu jigéen bii ñëw di taara eyaan daaray maama maam ma sàmba caam fa la maaram jànge moo tax war ngaa ñëw dut ka li la warul ci bis bi lépp def nga ko yaa ministre yu baax yu gore yi ngeen àndaloon léegi nag sàmba kii bëgg a kii bëgg a ñëw ah magam ju baax ja moo tekki woon montaram ca kër sëriñ Tuubaa ga ni ma montar bi jàpp man ko sëñ aboo lii nag mun ma demal takkal ko Amadou Ba ma ñëw takkal la montar ba mooy magi kii fallaw bu sa jaxëréw ba càmmiñal ma régi ma kunta quarante cinq la sëñ Fallou toog ci xalifa gi ni kur bandang rafle meng jiba muut dasa sax bandar juróomi sooro tàng fàllu walin wanel tamit doog fay jógee xaadim borom sëri fant maadi fant maadi borom ginne